mës ta am masaalik mës am mbooloo mi mës am lu mës am lu ne nag bu dee am ci kippaaru Sëñ Tuubaa lay amee xam nga lu ko bay li waral ñëpp te kenn mënu ko menn moom moo ko defal yàlla yàlla fay ko payu ñëpp mu ne ku ci bëgg ñëwal liggéeyal ma li waral ñëpp laa wax te kenn mënu ko menn mu sëñ Bamba ko def yàlla fa ko payu ñëpp mu ne ku ci bëgg ñëwal liggéeyal ma bi xidmatin la wax de ku ma liggéeyal aw bi ko baa nga sopp ma aw xel niyaati baa nga jox ma sa yëf yett yooyu rek wax fi la fekk julli fekk fi woor saka saka nattu murum kool aj màkka saraxe waaye bi mu ñëwee damay ku ma liggéeyal dafa jëna ku ma jox sa wërsëg dafa jëna ku ma sopp dafa jëna moo lii ku ko wax ku àndut ak foo jëm ñoo ngi ñaan sunu borom nga yàgg fi ca ànd ak mbooloo mii mbooloo mii na li nga ne de lii mas sa xew te yaa xewal ku bëgg sëñ Bamba yéene na la bëgg na nga wéy bëgg a ànd ak yow yàlla yàlla fa jaay yooyu Cheikh jërëjëf sama xol a tooy naruma war a wax ba muudu may sàmm waxee waruma wax waaye sama xol a tooy jërëjëf sëñ si la yàlla na yàlla fay la yow nit ku baax nga alaaji seex kon nga boo daanelee rek ñu jox sëñ ak saa ndax comme ni nga ko waxee rek ña ngi lay xaar feneen te it euh, lii nga fi jàng neex na neex goo xam ni taalibe yëpp kontaan ñëpp la seen xol seen waaye sam njàng kenn di ci doyal kon bu ko defee euh, loo ci teg rek yow loo ci teg baax na. giru giru nyangi la ilaha illallah ya rasulullah giru giru mustafa la ilaha illallah jàng ci bayti laay di tëddee na law bur bi yàlla laay la giru geer ñaa ngi ne laay oh, la waaw abu dalaay ma cëgaleem nga ma nga desi njëgu ma ca saaw ah. illallah bur yàlla la ilaha illallah illallah Muhammadu rasulullah dama lay way ba dee illallah man de bëgguma lu dul di la way ba dee la ilaha illallah bur yàlla la ilaha illallah illallah may fatu bintu rasul dama lay way ba dee way la ku way nu way ku wayul jox nu nu way yonen xayrul anbiyaa yonen xare na badar da onayni siise baan yamaama gaaya donoore hay la waaw ku sopp muhammadu rasulullah la ilaha ilaha illallah ala xal xamislu xamislu bind ku mel ni yeneen be la ilaha sopp yonent bi defal ni sa loxo ci xayru xalqullah la ilaha illallah man li may ñaan man li may ñaan li may ñaan jàll jàllalo dellu bayti la yàlla yonen dellu wàlla yàlla fa àndandoo amin nanu àndandoo ba ca bayti la ku sopp sayyiduna muhammad li may ñaan li may ñaan li may ñaan jàll jàllalo dellu bayti la ترفع الملائكة إلى توبة إلى توبة إلى توبة كسب سري سالي ولميا لميا لميا برم جبنا الموين دم بيت الله